Je pense que si j'ai bien compris la question, c'est une question concernant une coalition aux élections locales. je pense que d'abord, euh, il faut d'abord que l'opposition sénégalaise, euh, c'est mon point de vue, je vous ai déjà dit que je ne mâcherai pas mes mots, il faut que l'opposition sénégalaise se décide à se mettre ensemble. Et ça, je pense qu'il est temps qu'on se dise des vérités. Parce que pour se battre, on n'a pas besoin de faire des réunions. J'ai vu euh, j'ai lu dans la presse de ce week-end, M. Mokhtar Souran, qui est coordonnateur du FRN, et que je salue au passage. J'ai lu quelque part que Mokhtar Souran a dit que Macky Sall est toujours dans les calculs politiciens. C'est ce qu'il a dit. Mais je pense qu'on est en train de me donner raison, il ne fallait pas aller dialoguer avec Macky Sall. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a rien à attendre de ce dialogue il faut savoir pourquoi l'opposition sénégalaise aujourd'hui, elle, euh, elle, perd du temps à s'organiser. Et surtout pourquoi l'opposition sénégalaise aujourd'hui aussi n'arrive toujours pas encore à trouver les voies et moyens pour s'opposer. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Les Sénégalais attendent aujourd'hui un pouvoir qui, qui dirige et une opposition qui s'oppose. Tout le reste, ça relève de la littérature. da ngeen ma laaj laaj ma est-ce que dinañ bokk ci coalition ànd dem ci élection locale ma ne waaw laaj bu mel noonu su ngeen ma ko laajee euh, dama koy delloo opposition parce que man nee naa fu dëkk bi tollu tey du ma fi masla ak kenn du ma fi raay benn wax parce que yàgg naa opposé wu te lu may gis tey du opposition opposition soxluwul ay réunion yu jeex opposition ñun ba ñuy tuut tànk ba tey gis nañ fi Ablaye Wade opposé gis nañ fi euh, yeneen leader politique opposé wu opposition du réunion te bi maa ngi dégg ku ñuy wooyee Mokhtar Souran di suma mag maa ngi koy nuyu di ko siyaar au passage euh, Mokhtar Souran nee na euh, lu muy ñaawlu mooy président Macky Sall daanaka ci ay calcul politique rek la nekk ma ne ah, du ñoom ñu demoon ci ci ci dialogue politique bi ñoom ñoo xam lan lañ fa jëlee.

opposition bi ne bat buggul xulo buggul xex buggul até xex y a un problème motax mané su ngeen il faut leur poser la question parce que il faut qu'on se comprenne Macky Sall mënul continuer di nekkee ci dëkk bi lu mu nekk ci dëkk bi yu ñuy bëgg a lo ni que dafa am ñu fi opposé wu non il faut qu'on se dise des vérités ñu ne won dem ak Macky Sall dem nañ ak Macky Sall ñu nga xamné ne ni ñoom ñoo woote opposition nañ ñu lette bo nañu firi askanu Sénégal kan nañu fas opposé wu ak naka la ñu fas opposé wu parce que lu am tay Sénégal du benn dëgg du benn yoon xalé yi ñu ngi jëlaat gaal yi di mbëkkaat géej gi ana opposition bi lan lañ ci wax élection yi waxoon naa ko fi ci 2019 ba président Macky Sall génnee ci présidentielle bi ma ne leen kii lu mu fas def mooy toog juróomi at ci réew mi te bañ a organiser élection ñu ne ma Barthélémy Dias li muy wax jooju mu nekk tey ba 2021 amul amul élection wante lu ci gën a ñaaw mooy nee naa ci réew mi fii nee naa Macky Sall même su amulee sañ-sañ ne day def troisième mandat nee naa Macky Sall mi ngi ci yoonu wut demi troisième mandat ci bañ a organiser élection ci Dakar rek ak ak ci randal élection élection tey amul kenn ku bokk ci opposition bi tey bu la mën a wan fichier bu ñu audité nak ngeen mënee woote opposition ngeen da ngeen gëm seen bop bi yeen loi loi di code électoral mo leen may sañ-sañ ngeen am fichier Macky Sall di def du ko neex ci réew ñepp ne pat man Barthélémy Dias lu xam ak ñuma andal Dakar pour que ñu redécouper ko xana Macky Sall dugalaat ñu rëbës wala mu daal di jël suñu ay bakkan parce que duñ ko xaru ñu ci Massamba ñu ci Mademba parce que lu ñëpp a gis danañ ko wax ba Macky Sall taxawee fii ci réew mi yàggul Macky Sall ne lii di mairie de Dakar dama koy faire disparaître man personnellement nee naa dégguma kenn ci opposition bi mu am lu mu ci wax te dama koy ñaawlu parce que képp kuy opposant Sénégal yaa ngi yeewu Dakar yaa xam sa base politique yi moo xam fan biir Sénégal moo tax Dakar ngay yeewu sa ay doom yi Dakar lañu dem jàngi école bu ci tegu ba Macky Sall jógee fii mu ne day jël décret présidentiel pour nommer par décret le maire de Dakar dégguma fi benn opposant benn opposant bu ci yàgg ñu ngi koy ñaawlu tey nag ñu ngi wax que ñoom ñu ngi fële euh, département de Rufisque nee nañu ñu ngi redécouper Sangalkam redécouper Bambilor et cetera lu fay def teguñu ko ci benn dëkk parce que yu mel noonu day am lu ñuy woy démarche inclusive day am lu ñuy woy ay audience foraine ay nit ñooy ñëw toog te ay wax yu mel noonu waxu cosaan da ciy bokk waxu waxu aada da ciy bokk parce que Dakar a une histoire et je répète Dakar nous ngi voté Dakar depuis 1872 le Sénégal a existé presque 100 ans après donc le Dakar est plus ancien que le Sénégal naka la nit mën a jógee nii rek taxaw ne waaw dëkk bi comme mënu ma fi une élection nii la tëddee mais est-ce que yéen xalaat ngeen une seconde ñu fi yàlla may ñu dem Paris ñu xam Paris mais Paris ay arrondissement la premier arrondissement 20e arrondissement mais est-ce que xalaat ngeen fii que président Macron am na sañ-sañ taxaw nekk bépp arrondissement bu nekk Paris da koy seyal seulement pour gagner la mairie de Paris. Il y a la mairie de Paris dans le 4e arrondissement. Mais chaque arrondissement a sa propre mairie. La mairie du 18e, Sénégalais La mairie du 16e, la mairie du 15e. Toutes tous les arrondissements de Paris ont une mairie. Mais Mouno ne comme Mouno gagné mairie de Paris, tous les arrondissements de Paris pour maintenant, je vais voir comment organiser Paris autrement. Paris dafa am histoire loolu xel xalaatu ko Sénégal la nit ñi xalaat def ko neex may biralaat wax le Sénégal daf ko avec la complicité de l'opposition su ma baat ci kaw man dama te du gune ah. te du gune te du ma ba may ma leen ay ngi ne l'opposition n'a qu'à se lever s'opposer wala dinañ ci dinañ ci wax parce que nekk ci benn dëgg nekk ci benn yoon Macky Sall mënul nekk ci réew mi di def lu ko neex di jël fichier bi di def lu ko neex di jël ñi dañ tëj ci kaso bi di def lu ko neex opposition bi di ne pat il faut qu'on se respecte balaa may dee il a fallu autant de temps pour qu'on dise que bon en fait on vient de découvrir que Macky Sall n'est que dans les calculs politiciens ça veut dire quoi su ngeen génnee ci mbedd bi ngeen dem xëcc benn xale bu am ñaari wala ñetti at dina leen wax Macky Sall day jaay doole xamul démocratie te day calcul loolu ñëpp xam nañ ko munoo nekk un opposant tey ngeen bëgg taxaw jàkkaar ak askan wi ngeen ne askan wi que en fait bon Macky Sall n'est pas sérieux mais Macky Sall tout le monde sait qu'il n'est pas sérieux moom ci boppam xam na ni qu'il n'est pas sérieux donc ce n'est pas un débat pour l'opposition